sama daughter, man sama jabo, takala man sama family. Lomo gode gode, jimbade me life anane. Shay yalla, way wata sekkel ci yalla te xamne ëlëk yamal xiyam. jëf ju baax rek ay tax nga jàll yow mi ma liggéey ba ma dof toog sa biir kër ut sa njaboot te doo xoof maa ngi ni torox def la ay mbokk ndax feebaru xel bi ma yàlla teg tax ñu beddi ma génne ma seen biir ma nekk ci mbedd mi di dox seeneen allée yow li lépp yaa ma ko teg maa ngi ni xàmmeetuma lu nëpp wala lu foox lu yeng wala lu jub yow sama waay alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki association ànd taxawu ñu wéri di te yàlla rek tax ñu ngi nuyu képp koo xamante ni yaa ngi soqeekoo ci suñu maam Adam Pape Niang social jiite association taxawu ñu wéri di ginnaaw bi nga xamante ni jot nañ benn message jaaxle ak tiitaange goo xamante ni. mom la wa dekk bi di Nganda di dundu muy sunu mbokk mi taxaw sunu borom nattu ko mu am tawatu wéré du xel waaye xamnañ ni ñi nga xamanteni ño am feebaru xel li ëpp ci ñom dañoo nekk ci insécurité ñi nekk ci mbedd mi wala ñi nekk ci biir kër yi rawatina ñi nga xamanteni dañoo nekk ci biir kër yi nekk ak seeni mbokk ñuy wax mention spéciale à famille bi ndax dama wax ni képp ku am mbokk bu am feebaru xel nga téye ko wax dëgg yàlla yow jaayoo ngaa sant jaayoo ngaa jaaraamaal ndax yow di nga tax képp ku am mbokk bu am feebaru xel mu xool ci yow xam ni nekk ak ñoom neexul waaye mu téye ko xam ni nattu la boo xam ni suñu borom moo koy teg ab jàmm démb lañ jot message bi ñu daal di xëy 5 heures du matin jóge Dakar dox ay kilomètre yu bari rombu ngaay rombu pekes rombu ay dëkk yu bari ba yegg si fii ci dëkk bii di Nganda soxna si nga xamante ni moom lañ taxawal lan mooy sababu an taxaw ñu wéré di ci dëkk bii xale yi fi nekk yépp tey yéemu nañ ngir teewaay bu rafet bii lañu musul gis ay ndaw yu ànd jóg ci seen propre moyen ñëw ngir dimbali jaami yàlla yi te yàlla rek tax soxna sii nga xamante ni moom lañ taxawal dafa am benn jaaro bu mu takk ci loxo bi ba jaaro bi nar a yóbbu li nga xamante ni mooy baaraamam ñu nekk ci dëkk bi rawatina jëmm ji nga xamante ni booba ba tey mi ngi sonn ci ñu woo Pape su ngeen ma dimbaliwul ci sam su ngeen ma dimbaliwul ci soxna sii ragal naa ni dina ñàkk baaraamam bii man li ma ci gën a metti rek mooy mettit wi nga xamante ni moom mi ngi koy dund wax deug yalla mangi ngi yekni mo ngi metti trop te gisunu kenn ko xamanteni meun nañu ko dindil lolé sabab ñu and ak équipe technique bi nga xamanteni ay professionnel lañ indi nañ seeni matériel muy ñom bay Sawru ñom bay As ñom ya Adama ñom soxna gan Siri Mbaw ñom soxna ñom soxna tiané ak mbolé membres yi nga xamni and nañu nañoo ak ñoom sur le terrain tay di ngeen gis ñom tiané ñom ya Adama ginnaaw liggéey bi nga xamante ni équipe technique bi ñoo ko war a def muy ay professionnel ñoo war a dindi li nga xam ni mooy jaaro bi buñ ko dindee ba pare ñoom dinañ ko sang tekkil ko lépp loo xamante ni ay jaaro la yu nekk ci kawam ba noppi dinañ ko létt dinañ ko taxawu dinañ ko jàppale te yàlla rek tax man jàpp naa ni dëkk bii tey képp ku leen teggil jaaro bii mu nekk ci kawam jàpp naa ni teggil nga leen li gënoon a métti seen dund ndax boobu ba léegi ñu ngi koy gis waaye mënuñu koo dindi booba léegi ñu ngi koy gis ànd ci ak yërmande loolu moo sabab teewaayu association taxawu ñu wéri di te yàlla rek tax yéen ñi seetaan vidéo yi laalal leen ñu kër yi foofu ci écran bi pour wane seen mbégte gi ngeen am ci ànd taxawu ñu wéri di te yàlla rek tax soxna si maa ngi lay nuyu. Mm, ñu ngi lay fay. mbaa yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi am jàmm ke. yow noo tudd. man soxna Mbène. soxna Mbène ñaata at nga am. man am naa téeméer rek. téeméeri at am nga am borom kër. waaw am naa borom kër. sa borom kër ñaata at la am. sama borom kër sëñ Sawru mu tudd. sëñ Sawru ah Baye Sawru am na fi am na fi soxna nee na borom këram sëñ Sawru la tudd waaw eh, sa borom kër ñaata at la mm, am. na ñaar. am na ñaar lan. am na ñaar téeméeri at. moom ñaar téeméeri at. waaw moom la am. ndeysaan fii nga dëkk fii fii ñu la fekk fi nga dëkk. waaw fii laa dëkk Ngandi waaye Touba laa sëy Touba nga sëyi. waa Touba laa sëyi. bëgg naa xam tey lan ngay yëg ci aw métit. Mm-hmm. man. Mm-hmm. xanaa loxo rek laa am loxo. loxo bi. waaw ndax mën nga maa génne loxo bi ma xool ko. ah loxo ma ko. loxo la amee jaaro bii jaaro lan la. jaaro xaalis la. jaaro xaalis bi ni mu def sa baaram bi metti na de. ah metti na kay. tey lan ngay xaar ci ñun. ah xanaa jaam ak salaam. bëgg nga ñu dindil la ko. waaw. buñ la ko dindilee mbaa di nga tey boo tëddee di nga nelaw. ah soobu yàlla. Alhamdulillah, bay sa ruum sori na waye ñun duñ yëg sori waye ndax ki ñu tax a ñaar yi nga xamanteni mo nekk ci mom te nekkul ci ñun bi ci jëk moy yalla suñu borom da koo teg tawatu wéri di xel waye benen bi ci dess moy ñun ñi and ñep kenn ku ci nekk suñu borom denk na la sa wër gi yaram ba ñu mën a Dakar ñëw fi ci jamono bi nga xamanteni ñu ngi ñëw fi mom mi ngi nekkon di dundu fitna lu tax ñu daw gaaw ñëw moy japp nañ ñu ñun ñoko wara mëna takalé ak fitna bi te yalla rek tax bàyyi pap bala ma ñëw ci soxna si ak jaaro bi dafa am message boo xam ne bëgg naa ko lancer fàttaliwaat tuuti ni kaa yu mel nii képp koo xamante ni gis nga ko te yàlla rek tax na nga woote ci numéro boobu ci band écran bi fépp fu waay nekk pare nañu pour fekk la fa dindil ko jaaro bi te yàlla rek tax li tax ma ciy lancer message mooy euh, maa ngi fàttaliku kaa bi mel ni bi ñu ci demee Mbuur démb rek Baye Pape yaa ngi koy wax ci live bi maa ngi doon bëgg dugg sax pour indi loolu ndax malaat boobu ñu demoon mbuur dem dindil ko jaaro loxo boobu doon bëgg a yàq loxo bi laataa ñu ciy jot ñun ay mbokkam jëloon nañ ko yóbbu ko hôpital waaye waa hôpital bi ñu xoolee baaram bi dañ leen xamal ne lii kenn mënu ko dindi dagg rek ba jotoon leen a bindal benn facture bu tollu ci six cent mille mbokk gi doon dugg fu nekk pour am six cent cinquante mille dem fay ngir ñu dagg baaram boobu may wax ne baar euh, jaaro yi mënees na koo dindi te duñu dagg baaram bi ndax amana kérok bu ci an taxu ñu wéré di jotul won bu mbokk gi do lin mbokk gi doon dajale bu maton rek heure bi kon fekk na waji ñak na baram motax bu ñuy gaaw di ci ru doomu rawati na jaar yi nga xamanteni ni nekk ci loxoy malade mentale fi ñu ñew nak japp na ni bi moy wala juróom ben wala juróom ñaarelu ka yo xamni ni taxawu nañ leen ci anam bu melni taxawu nañ sax ño xamni ño gëna graw eh, soxna si ni donte ni bosom bi graw na waye dal ndegam indale nañ way yépp am nañu euh, première euh, chose biñ ci njëkk a def rek mooy dinañu xool loxo bi ndax mën nañu ko ndax mën nañu ko euh, am nañ daal ay système yoo xam ne dinañ dinañ ko ci def bi ci njëkk mooy rek dinañu jël euh, suñu genre fil bi ñu yor rulle ko ci loxo bi xool ndax mën nañu najal li nga xamante ni moo di neewi neewi bi bu ko defee nag ñu indi suñuy xalaatu bopp récupérer jaaro bi sans pour autant que mu laal loxo bi waaye lii ma gis jàpp naa ne fi ñu daan jaar ay moromam rek la ñuy jaar mooy gis ngeen ko dinañ indi matériel yi nga xamante ni moom la ñu koy fas yéenee dindee li ci ëpp solo rek mooy tey bala ñoo génn dëkk bi moom dina tàqalikook fitna bi te du gaañu benn yoon ndax loolu moo ñu tax a jóg te moom mii day xam naa ne ci jamono bii nii fitna bii muy dund ku ko taqale ak moom wallaahi azim gëm nañu ni tey dina taqale ko ak moom incha allahu rabbi waxuma la yaakaar ci moom deux cent mille cinq cent mille un million moo ñu gënal fat suñu moroomu jaam boo xamante ni suñu borom dafa wàcc ci moom tawatu wéri xel du ndékki bu heure añ jotee du ku nekk ci ñun boo ko xoolee ci sa bopp bu heure ndékki jotee te ndékki woo foo mënti dugg da nga ko dugg lijjanti loo ndékkee bu heure añ jotee noonu bu heure reer jotee noonu moom mi nga xamante ni suñu dafa wàcc ci moom tawatu wéri di xel ana tey bu heure ndékki jotee fan lay ndékkee bu heure añ jotee fan lay añee te ñi nga xamante ñoom la yaakaar ni bu démé ci ñom dinañ ko dimbali ci lu mu lek dañ koy toroxal ba nopi daal di koy toroxal sanni ko ci mbedd ma té ñom ñun ci ñun lañu bok lañu xamni malade mental yi ci ñun lañu bok ah, bul ko jànni bul ko xalaat yow nit nit mooy sa garab xanaa gisoo gis sa wet dafa am feebaru xel yaa ngi koy romb na wet doo ko bàyyi xel xamul lu saf mbaalu lewet yow xiif te du lekk mar te du naan ci mbedd mi lay fanaan yërmande foo ko romb aju mooy feebar te du faju jël ko pat ko toppatoo ko bu feebaree nga faj ko bul ko bàyyi ci mbedd mi ci sedd bi muy xiif ak raf lee koy toroxal di ko sacrifier ngir alalu àdduna lii ñaaw naa lii dafa ñaaw bul ko jani bul ko xalam fexal utal ko barab xana gis lu nu mu mel dafa am feebaru xal bul ko jani bul ko xalam fexal utal ko barab 動く Thank you. sama family lu ma gode gode waaye waatal sa xel ci yàlla te xam ne ëllëg yamal xiyaam jëf ju baax rek ay tax nga jàll yow mi ma liggéey ba ma dox toog sa biir kër ut sa njaboot te doo dox xoof maa ngi nii torox def la ay mbokk ndax feebaru xel bi ma yàlla teg tax ñu bedd ma génne ma seen biir ma nekk ci mbedd mi di dox seeneen allée yow li lépp yaa ma maa ngi nii xam ne tuma lu nëbb wala lu faax lu yeng lu jub yow sama waay feebar bu la mën a yóbbee bii rek sa xel tan sa bakkan ndax ba yéen wul way xam nañu bop attan feebaru xel bul ko ambal di xalar ke manta wana lor kii warta yare da ndax andol ak sa gom gala way sama way nang ko xoolee batu yaay alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ñu delu santat yalla bu baax a baax di wax rek ne bi ginnaaw bi ñu bi ñu sante yàlla eh, julli ci yonent bi ñëw fii nii ci dëkk bu sore sori ah di wax ne que amuñu sax kii comment dirais-je man moom mënuma teewlu tur bi xam naa bay Pape Mbaye gina ma si jàppale ci tur bi ah, fekk fii nag soxna Mbène macha allah ak jaaro bi ko doon fitna waaye sama borom dogal dogal nag ne xale góor yi dindi ko. waaw ñu nak ñu daal di koy yóbbu yeesal ko fekk ko nag si ndigg bi ay euh, bagage yu bare bare nag mu ne woon ay téere la waaye suñu borom dogal na ne dindil nañ ko lépp di wax rek euh, képp koo xamante ne gisati nga ku mel ni mbeen takk jaara boo xamante ne dina ko fitnaal ba di ko jural ñàkk lo baaxaamam ñu wax rek ngeen woote ci numéro bu baax bi 190 77 67 fu waay mën a nekk ñu fekk ko fa tàggale ko ak euh, jaaro yooyu ndax jaaro yi mën nañ cee ñàkk seen baaram mën nañ ci sax ñàkk seen loxo ndax amoon nañ ci cas moo xamante ne mi ngi tuddoon kuwaame ñoo mujjee woon amputé loxo bi euh, ñuy santaat yàlla bu baax nag di gërëm nag waa cas urgent bi yëpp ñi nga xamante ne duñu sonn duñu taay muy guddi mbaa muy bëccëg ñi ngi ci terrain bi ah ñu leen di remercier bu baax a baax a baax a baax di wax jërëjëf asalaamaaleykum ami internet yi gañ siri la bokk ci association am taxaw ñu di. tey ñu ñëwoon fii Pekes ci benn village pour dimbali suñu yaay booy bi mu ngi amee woon métti bu métti ay jaaro la dugaloon mais xale yu góor yi def nañ ci seen Pastef vraiment ay jàmbaar lañ dimbali nañ ko ba tàggali ko ak métit boobu am naa yaakaar ne tey moom bu tëddee dina nelaw waa ñuy sàkku rek képp ku gis malade mental wala manto buy jànkoonteeg ak mettit yi nañu woo waa am taxaw ñu wéradi te yàlla rek tax ñu ñëw dimbali ko. asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu ñëpp tey ñu ñëwoon dimbali suñu malaat bi ku nekk gis na loxoom bi ni mu meloon vraiment ñu ànd ak waa cas d'urgence tey ci tàngaay bi ku nekk xam na ne naaj bi tàng na torop ñu ànd ak Pape Niang mu ci suñu malaat bi kontaan nañ bu baax vraiment sang nañ ko. toppatoo nañ ko fajal nañ ko loxo bi yaakaar naa ne moom sax xol bi sedd na. alhamdulilah ñu dellu santaat yàlla suñu borom bu baax a baax ginnaaw ba ñu bàyyeekoo dakaar ca fajat daw ay kilomètres yu baree bari yoon wi sori metti lool waaye nag. kenn ku ci nekk ci yéen bu gisee vidéo bi dina xam ne lii de jar na bàyyeekoo Dakar dem ban dëkk bu nekk ginnaaw Casamance wala Tamba wala fu mu mënti doon ndax lii de takkale sa moromu jaam ak fitna jaamu yàlla gënu koo féete kaw te alhamdulilah bi ñu yegsee li nga xamante ni rek moom la ñu yàlla na nattoo woon mooy fu ñu gis ku sonn rek ñu daw wutali ko ngir dimbali ko te yàlla rek tax jëmu ji ñu toogal mooy ki nga xamante ni moom moo woowoon baa Pape Niang doon sakku ci moom ndax duñu ko dimbali ñëw dindil ko jaaro bi yëkkati téléphone am di woote amoon na yaakaar ci ni bu fi association Ande Taxawu Ñu Wéri di yegsee dinañu dindi jaaro bi te du ànd ak benn fitna mu mel ni noonu lañu ko defee yàlla defal nañu dindi nañu jaaro bi te moom malade bi sax li ci ëpp yëgul ni sax ñu ngi dindi jaaro bi ndax lépp dañu ko teg ci yërmande waaye li ñu ci neex dëgg mooy rek yaakaar ji nga xamante ni moom la ay mbokkam amoon ba wooñu bi ñu ñëwee yàlla defal nañu ci lu kawe suñu jot dañuy yëkkati kàddu gi jébbal ko ko moom mi nga xam mo wote won mu yëkëti ay kaddu wax tegg yalla liggéey bi nga xamanteni dal am an taxaw ñu wéri di ñu koy liggéey mention spéciale kilifa gi gannaaw ba ngay wote kérok wote ba nopi ndax yaakaaroon nga ni sax bis dana jot danañu dawal auto ba dugg sa biir dëkk rawatina ñew takalé sa mbokk bi ak fitna bi. alhamdulillah assalamu boko mbokk wa taxaw malat malat ñi di ñoo ngi sant yàlla di leen sant bu baax a baax ñoo ngi sant yàlla luñ santoon yàlla ñoo ngi koy dolliwaat te di leen sant bu baax a baax bi yàlla dogaleet maanaam lii am ah, bi yàlla dogalee ma gis ma woon affaire bi sax ndax wax fa dëgg yàlla dama doon dégg rek ñu koy wax di ko dégg di koy wax ba ni ma envoyé photo yi ci keneen laa ko jële waaye du man maa ko maa ko ci maa ko ñëw photo ko sax bi yàlla dogalee bi ma ko yónnee papaan presque yaakaar naa tay démb la bi mu ma ko waxee démb ca ngoon bi ma ko woowee ne ko papaan maa man la ndongo fay de maa la doon woo doon la wax suñ benn mbokk taalibe ak suñ benn mbokk boo nga xam ne ma nga dëkk ba ah, jaaral la dugal ci loxo bi daal te xam naa yaramam dafa xaw a naqari Pape Aan ne ma envoyé ma 30 secondes benn photo bi ma ñëwee démb saraxa amoon ci dëkk bi bi mu ñëwee rek dama ñëw photo ko 30 secondes envoyé ko ko bi ma ko démb ci ngoon laa ko bëri démb laa ko envoyé démb ci ngoon bi ma ko wooyee mën ma suba dinaa fi ñëw Manuk ne ko est ce que di nga pap ma suba dina ñëw Manuk alhamdulillah alhamdulillah. ba lolo tax suba teel dama teel a yeewu ko bima ko woowee mu ma ñoo ci yoon ñoo ngi teewoon ah wa sëñ bi est dama que nax wala mu ma ñoo ngi bu soba yalla ñoo ci yoon wi ma yalla na mais dal sant nañ len fu sant commencer waye fu mu yam mënuñu ko xam yàlla teg ci yoonu jàmm seen liggéey yal na ko yàlla jubal ci barke xaar